mais mënuñu leen a bañ a jox information yi di jégal tamit nga xam ne jamono ji li ñu leen xaw na néew mais xam ne rek am ay ay yitte koy waral mais laata boobu nag yéen kaay bi di donc stade jox tamit rek ñëw entre fédération nag li indi ay xam ne mooy xew wax aussi si nga xam ne donc Al Nassr xam ne ak ñoom dañu war a gagné seen jongante ndax fi mu ne nii amaguñu ab ndam donc si seen jongante yi def yëpp benn defee défaite dañu ak benn match nul loolu nag ñu fas yéene ci war a am taxawaay buñ ci war a amaat waaye tamit wax ci li nga xam ne tamit mooy yéenekaay bi nga xam ne nag moom mooy donc euh, Mundo Deportivo di wax ci nga mooy donc Javier Rubiales ah donc koy wax day daal di euh, démissionné euh, président bu Espagne bi fédération bi donc gannaaw bi nga xam ne nag li mu fóon soxna soos nag jur na coow bu rëy foofu noonu ca Espagne gannaaw bi ñu coupe du monde bi wax également aussi mooy maillot seul bu Aston Villa bi mooy seen troisième maillot les joueurs d'Aston Villa donc lii nag lañ nekk mayo bu ñu sax nga gis ne kii ah, euh, euh, mooy bu rafet la ah, mayo bu rafet nga ki nga xam ne aussi nag gars yi mooy Keita Baldé Diao mooy donc Spartak na te euh, dem ba ñu waree joué donc daf ko daal di écarté ci groupe bi nee na pour des raisons techniques agent wu Keita Baldé Diao nag nee nañ fi mu ne nii Keita Baldé Diao moom fas yéene fa jógee kii nag également du Carlo Ancelotti moom indi ay leeral jëm si nga xam ne donc Mbappé ak li jëm si mercato bu Real Madrid nee na Real recruter wu ñu saison bi ñu nekk nii mercato bi ku jeexagum nii am na yeneen mercato yu war a ñëw nag mais nee na yi jeexagum nii nii nii fi mu ne nii fas yéene wu ñu recruter Julian Draxler moom itam ah, donc waa Crystal Palace ñooy intéressé wu ci moom.

Muñoz que rey de lugar. ndax fi mu ne nii daal Inter dañoo nekk di renforcer seen équipe bi donc comme que instant euh, euh, nga xam mooy euh, kii rek fa nekk ah donc benn attaquant fa nekk ah donc maanaam jamono ji daal dañuy jéem a liggéey pour am lu ni mel kii nag di Balogun Balogun également ñi di waa Arsenal gars yi ñoo ko daal di jaay Monaco bu ñoom Crépin Diatta donc Balogun fa la daal di dem daaw nag championnat France dañ def saison bokkoon ci meilleur buteur yi sax ki nga xam ne nag mooy Luke Shaw aussi gars mauvaise nouvelle pour Manchester United Luke Shaw dafa daal di blessé temps moom blessure yu bëri na temps moom blessure wax dëgg yàlla bëri na donc Luke Shaw bokk na aussi si nga xam mooy donc jongante bii di war a ñëw pour Manchester United moom du ko daal di joué Romelu Lukaku gars yi Lukaku nag fi mu ne nii euh, moom daal AS Rome lay mujjee dem dafa mel nii parce que neen daal du dem waa Juventus ndax Juventus dañu xaw a yéex ci seen euh, jël décision par rapport au moom moom daal fi mu ne Chelsea dañ ko bëgg a abale nee nañ daal waa AS Rome bu José Mourinho par nañ ko daal di ko recruter kii nag également di donc euh, le joueur Santos hein, donc euh, de Chelsea fi nak les Blues de Chelsea ñom ñoko ko bëgg aal ñoo koy aal sax Nottingham Forest lañ koy aal bu ñoom Moussa Niakhaté foofu lay dem ndax dañ ko aal ni dañoo bëgg fii ak juin mu dal dañu ñëw mais pour lolu dañoo bëgg mo am temps de jeu bu bëri yu bari kii nak di Tony Ivan Tony nga xamné ne gaay dañ ko daanoon pour li nga xamné nak mu nekkoon ci euh wàllum euh, donc euh, ay wàllum carte ay paris sportif fi nak nag daanam li mu jeex waye tamit club yu bëri daal ñu intéressé ko dal di koy recruter kii nag di Doku wax na la ko Jérémy Doku donc dem na du côté donc de City c'est confirmé depuis hier donc mom nak mu nekk le transfert le plus cher de l'histoire de Rennes par rapport yi nga donc li di euh, donc mercato bi nga xam mom moom la waa def ñu jaay ko lu 60 millions dañ ko jaay nga moy donc moy Manchester City ki nak également di Mohamed Kudus le joueur de l'Ajax Amsterdam dem nak triplé la def moom sax match bi jeexee nee na daal euh, na match boobu mooy match avec nga xam ne donc Ajax nañ koy du côté de l'Angleterre li nekk di Arabie Saoudite classement baa ngi nii fi mu Al bu ñoom Karim Benzema ñu ci kaw 9 points toog ci Al Ahli bu euh, ñoo Al Hilal ah, donc il nga xam Al Il Al Werda nga ci 15e position bi lañ nekkoon Al Ahli dem ñoom ñoo kii di Franck Kessié moo le but donc euh, des saoudiens donc à la 96e minute de jeu lañ ko daal di euh, dugal kii di Edouard Ndiol ko moom biir mais di clean sheet la daal di par rapport à nga xam ne donc match boobu noonu gis ngeen ko mu nekk nii donc moom mi ngi enchaîné match yi dé mu match boobu nak il a eu son clean sheet au niveau du championnat donc Edouard Mendy mi ngi am temps de jeu temps de jeu donc on espère que ça va continuer dans la même dynamique que temps de jeu on a en force Les nationale du Sénégal gars yi été wax ki nga euh, Senghor euh, notamment surtout fédération bi daal ki nga Sénégal du dem Rwanda pour jouer Sénégal dernière journée éliminatoire yi y bi gars yi que fédération euh, Rwanda stade bi CAF qui wul ah, mën nañ faa jouer football bu international et tout ndax nag donc ñu wax nañ seen stade bi doo leen fa jouer ñoom nag ñu def ab bataaxal jébal ko waa fédération waa Rwanda ne waa fédération bu sénégalaise dañoo bëgg nag suñu jongante bi ñu daal di koy amalee si nga xam ne donc seen stade étant donné que ne yéen fi mu ne nii seen bos daal nañ ko homologué ñu daal leen di wax nag ne leen euh, loolu daal mun na nekk waaye tamit sur le principe daal ñu ne mu ci benn tolof tolof mu ngi dem ba ci biir nag ba ci mujjantal gi waa Rwanda ne ñoom jongante bi dootuñu ko defee fi nga xam ne donc Sénégal ca Kigali lañ koy defee par force par la force waxtaan nag am ci ñaari fédération yi mais juboo amul fi mu ne nag dañoo dem ca CAF fa ma xam ne doone benn pour daal ci waxtaan mais nag Sénégal fi mu ne daal ci bu ñu sukkandikoo ci taxawaay bi ñam ñoom ñoo am dëgg ndax euh, match bi euh, ñii seen stade mu ñu ko fa defee bare te dernier journée la te ñoom aussi jël nañ daande même bu ñu gagné ñoom ñoo jël daande ci poule boo xam ne nag fi mu ne lépp loo xam ne rek jëm na ci euh, taxawaay yi daal na yemb ci lu ni mel donc loolu nag moo nekk coow bi mu ne Augustin Senghor moom nag nee du bàyyi euh, président également bu ñii di Rwanda aussi na nga xam mooy taxawaay bëri na gars di jégalu encore ci biir ñu ngi jégalu démbaloon nañ leen dugal bi muy amoon ay torof torof nañ ko dugal tey incha ci Baba Show su baaxee si yéen la gars yi caa ngeen def